di seen parents d'élèves fi teew ak yi teew ak yi seen doom mokkal ren ak yi seen doom mokkal at yi yëpp muy onsan yi ki daan taxaw sen doom yi ba daw leen gënd neexal di leen jox ay kamil di leen jox ay tissé ba li sol tay ji ñom ñépp moko gënd moy soxna si kon na yeen ñi teew ngeen ñaan yalla guddul fanam agalé yeenem ndeysaan ndax onze ans yi da leen a wuutu ci seen njaboot loo xam ne kenn musta jëndal doomam kaamil baa ab tiise bu mu sol wallaahi ndeysaan sa maam Faati ñëwal nuyu sa bàjjan baa sa yaay moom tam doomam suñ xaamidun mokkal na moom fukki at yi ak benn sëñ Lamin ku sa doom tari rek am na ñoo xam ñoo nga ñoo nga ñoo nga ñoo nga màkka ëboo ñes mi sëñ ëboo ñes mi xam na ko sëñ saam moo nga màkk am na licence am na ñoo xam ñoo nga Égypte ñoo ñëpp ñi leen daan neexal mooy son ajaam yi kon nag yéen ñi teew seen doom mokkal ren ak ñi mokkal at yi yëpp da ngeen xam ni ki daan gënd loolu daan leen taxaw mooy ku baax kii ngeen yàlla àggale yéeneen dëgëral ko mu fekkee njariñ njabootam ak jullit sa njili mënu ci ñàkk yaakaar naa mënu ci la macha na yàlla fay ko mu ne mu ne toog nii mu dañ ko bëgg jël normal mo Mambar itu mereka jam. Kapres. Kapres. Mau tuh kesal ya tuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وسريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من عمسات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يعبدون حضرات سيدي وساداتي نحييكم بتحية الإسلام التي هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit yi mbokki taalibe yi gannaaw ba nu sante yàlla sunu borom subhaanahu wa taala julli ci yonantaam bu tedd ba alayhi salaatu wasalaam julli ko soob sunu borom julli ko ci moom alayhi salaatu wasalaam noo ngi feddaliwaat sunu cofeel ak sunu ngëm ak sunu doylu ak sunu yaakaar àddina ak àllaaxira ci sayxinaa Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul di ñaanal bu baax nag Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ko sàkku ci ndongo daara yi nekk fi yëpp di ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaxa sunu borom bu dal aw fanam te wéral ay cëram te sàmm ko aar ko ba liggéey ñi nga xam ne moom la bëgg a liggéeyal Serigne tubaa ak naal yi mu naal mu yeggale ko ba naalaat yeneen tam ànd koog mboolem njabootu Serigne Touba gépp ak mboolem taalibe Serigne Touba yëpp ak mboolem seexi Serigne Touba yëpp. Euh, mu melni délégation bi nga xamné ño and ak soxna Ngoné djop tew fi ci barab bi mom lañ bëgg lim gannaaw ba nu jëlé sunu nuyo sang yi suñu bokk yu bax yi nu fekk muy serigne Mbàkke ñoo ngi lay nuyu bu baax mom serigne Amidou di jël nuyo bi ti ko tek sa loxo nga jottali ñu ko mbolem bokk yi fi tew yépp euh, di sant yalla nak ci jotaay bu baax di gëreum bu baax ci jëf ji rafet yi nga xamné jëfal ngeen ko alcorane te kenn ku nek xamna alquran moy mooy bëgg Serigne Touba Serigne Touba musu ñuko jox lenn mo nangoo ko ci loxam dul alquran alquran la bëggoon lool ba taxna lu melni bu amé ngeen tuddé ko jambar gi nga xam kenn la ci ñun ci l'islam muy soxna ngoré jop loolu ñun ñi di ay mbokkam yaakaar naa dana leen sant na leen gërëm kon mu melni ni loolu bu ko defee itam yeen ñi nga xam ne yéen ay waa alxuraan su ngeen jëlé lu melni tuddé ko soxna ngoré jop wacc ngeen waaye moom itam bi tax ñu tudde ko ko warees na koo xam ndax mbir moo gis mu am dañuy xool sabab ba ndax maamam bàyyi ko ne fii ànd ak Serigne Touba maamam bokkoon na ci ñi demoon fekk Serigne Touba ca gànnaar bind na ci ñi nga xam ne itam ñi dàqoon a bind ci Sénégal ci la bokkoon muy maam yi soxna Modou Diop muy sëñ Mor Asta Mbaye sëñ Muntaxa moom Cheikh Mahamadul Bachir ñu fi toog toogaayu Serigne Touba. màggal gi ñuy defal sëñ Mor Asta Mbàkke jak la kere bi mu yabalee sëñ Mamoor sëñ Muntaxa ci boppam ba fa sëñ Xaadim demee di sëñ Mor Asta daf ne ko de man de kaamil bii nga xam ne sëriñ Tuubaa moo ko joxoon Cheikh Mahamadou Bachir te mu nekk samay loxo te damaa déggoon ne sëñ Mor Asta daa daa rafetoon loxo lool kaamil bii de dafa maa doon bindub sëñ sëñ Mor Asta Mbàkke kon jàpp naa ne suñ demee ba tuddee ko lu mel nii loolu du asa ñi sant yàlla bu baax nag ci wallaay jataay bi ak bi yi mu àndal ñëpp ndax bokk ci aw askan baax na lool waaye wane la nga xam ne mooy melo yi ak jikko ya loolu wane na ko moom soxna Ngoné Diop fii nga xam ne itam fi lan toog tey yaakaar naa ku gestu boo xalaatee li nga jëkk a wax mooy ndaam sëñ ndaam Abdourahmane Lo boo gestuwaatee si wet jii sa xel dem ci sëñ ndaam Abdourahmane Lo ma jàngal maam Cheikh Anta jàngal ab taaw mi sëñ Modou Mamoun tàngal taaw sëñ Modou Mamoun mi sëñ Modou Rokhaya kon alxuraan mi ngi noonu kon lépp taraagay wallaay ndeysaan kon ñoo ngi sant yàlla baax ci jataay bi kon ñu lim délégation bi di seereel mbokk yi ne leen ñun day Mbàkke lañ sant du mbokki soxna Ngóone waaye nag am nañ fierté ci bokk ak moom ndax euh, sama wajur baax danaa wax ne nit ki su bokkee ak yow mu yaafuus wala bu ñàkk fay na lay bokk waaye yow lankal bu ko bokk te kenn ku ne dégg na Sëriñ Tuubaa mu wax ne kenn ku ne la nga baax la laa bokk ak yow soxna Ngóone ak baax moo tax mu bokk ñun kon yàlla na ko yàlla fay waaye yéen yàlla na leen yàlla fay ci jëf ci ngeen ko jëfal kon mu mel délégation bi ñu àndal bokk na ci sëriñ Mouhamadul Moustapha Kamal Mbacke mu ngi nii toog ñu doom yi nijaayam kon mu mel ni ay mbokk rek la àndal waaye ànd naag sëriñ Cheikhouna Ndiaté moom Cheikh Moustapha Ndiaté sëriñ Cheikhouna Ndiaté ñu ngi koy ziar ànd naag Cheikh Mouhamadoul Moustapha mi toog di doomi Cheikh Mouhamadoul Fadal macha allah itam sering Mame Balla Mbacke ànd anu naa itam sëriñ Jiili Ñaŋ alxuraan mi nga xam ne moo war a wax ci kàddoom insha allahu rabbi anu ànd naa itam sëriñ Modou Ablaye Sëñ ànd anu naa itam délégation bu mag ñu gën cee ràññee soxna Ndey Mbacke ànd na ci délégation bi soxna Boussa Mbacke moom sëriñ Cheikh moom soxna Maram Dieng ànd na ci délégation bi soxna Daba Mbacke ànd ci délégation bi soxna Anta Mbacke ànd na ci délégation bi soxna Waalo Mbàkke ànd na ci délégation bi soxna Ummi Dieng ànd na ci délégation bi soxna Ami Kolle Diop ànd na ci délégation bi soxna Bayta Baba Baban ànd na ci délégation bi ku ñuy wax soxna Maam Jaara Ñang ànd na ci délégation bi ku ñuy wax soxna Ndey Sëy ànd na ci délégation bi ku ñuy wax soxna Maam Astu Mbàkke ànd na ci délégation bi ku ñuy wax soxna Maam Faati Mbàkke ànd na ci délégation bi ku di wax soxna Mbène Sène ànd na ci délégation bi ku di wax Khady Cheikh Diop ànd na ci délégation bi soxna suñu wax soxna Ndeye Samb ànd na ci délégation bi soxna suñu wax soxna Khoudia Niang ànd na ci délégation bi soxna suñu wax soxna Dieye Thioune ànd na ci bi soxna suñu wax soxna Mbène Dieye ànd na ci délégation bi ku di wax soxna May Mbacke Waalo waaye ànd na ci délégation bi itam Serigne Ngouda Diop ñu mu àndal nag bari na waaye dama koy tënk rek ndax euh, waxtu yi dafa xat waaye ñu ngi leen di sant di leen waaw nah. waaw nah, kon ak sa waaw ñoo ngi siyaare sëriñ daara yi toog yëpp sëriñ Seexuna li sëriñ Seexuna li man mi jàngal na sama doom alxuraan kon loolu day wane ne jataayu alxuraan lépp mbégte la te muy jàmbaar lool nag wallaay ndeysaan waaw te muy ku jàmbaare koo xam ne wax dëgg yàlla koo xam li muy daj ci alxuraan ak li muy daj ci daara yal na aku yàlla fay ci barke alxuraan kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jox kàddu yi nga xam ne la soxna Ngoone bëgg a ci ak cant ak ngeureum ñu jox ko sëriñ Abdou Khadir muy serigne jili alquran yaakaar naa dàkkantal bi rek doy na kon mom yakarna dañuy tuddé ci alquran rek delu ci alquran kon ñu jox ko kaddu gi sëriñ Abdou Khadir bismillah assalamu alaykum wa rahmatullahi taala ma sha allah. mi nga xam ni mooy kilifa bi yëpp waaye di nuyu it am mbégte lool nag ci jël kàddu ak ànd ak soxna Ngoné ñëw ci jataay bi ak kilifa yu baax yi nga xam ni moom lay àndal ñëpp di ay kilifa yoo xam ni doyoon na sëkk seen jataay ci barab bi ñu xam ni soxna si xam na gëddëg li ngeen ko defal ñëw fi nag ci ñaari anam bi ci jiitu mooy soxna Ngoné day suñu mbokk te di ko mën a jokk mbokk loolu rek doy na ak mbokk lu am solo la waaye dana gën a ki nga xam ni toll na ci yenn situation te yàlla dafay tàkk bu baax ñi nga xam dañoo modeste am na ñoo xam ne bu fekkee ne tey mbir yi demee ci ñoom nenn ni day mel ni mën a xool ci li leen wër wala seen ginnaaw ko dalut ñu mu àndal loolu am importance loo xam ni ndax gis nga alxuraan gi ñuy jàng dañ ko war a dégg maanaam alxuraan bu dañ koy jàng rek di moo jikko yonent bi daal dafa waxoon ne jikkoom mooy alxuraan kaana xuluqul xuraan alxuraan nag moo digle yu baax yëpp moo digle jokk mbokk moo digle leeral moo digle maanu moo digle def lu baax yooyu yëpp nag dafa mel ni jamono dañ koy dégg rek di korom kon jikkoom ju rafet yooyu nga xam ni moom lañuy ñuy tàggee nit li bokkoo bokkook moom bu ko jokkutoon dañuy xaw a jafe waaye bu modeste la bu mën a xëcc ci ay mbokkam te loolu xëy na ci jataay bi mu ñëw ndax kilifa yi ma àndal ku ne xam ne lu fi waaye am Sëriñ Tuubaa tax nga am te waa ahlu Mbàkke ñàkkuñ fayda jaaxlewu kon ku mën a am ci ñoom foo jóg ñu mën a ànd ak yow ça veut dire que ni mooy defar na sa jikko loolu nag soxna Ngoye alhamdulilah ñu ngi ci encourage bu baax ndax àdduna amul solo te lépp dafay jàll waykat bu arab dafa waxoon ne wamal maru ila hadithun ba'dahu fa kun hadithan hasanan liman waxa nee lu doon dara nooy a waxtaane ginnaaw mu ne kon fexeel ba nekk waxtaane war a fekk sa ginnaaw yow macha allah yàlla yàgg yàlla sax la dee waxal lu baax la leen wax kon bokk na ci li ma fii ci jataay bu moom woogu moo woon ñu war a ànd ak tudde ñu ko tudde nga sax waaye xam boo xam ni ak cër bu mu am ci man bu ma bu jógee mën na ma ànd ak moom ci leneen rawatina lu fay jógee jataay bi du suñu jataay ndax alxuraan la ñu jàngale waaye ñëw nañ fi ci turu jaay si Cheikh Ahmad Bamba Rasuul al alamin ñetti li xuraaj moom ca kuréel ga la ndax keroog ba ma ko waxee dañ ma dugal ma ci groupe mooy ci groupe bu jigéen mooy ci groupe góor ñi diiraa processus bu daaw bi li man lépp ci jëf ak wax def na ko ci li li may gën a indiwaat ci fonk bi fonk jataay bi defin wu rafet bi mu ko defee mooy dafa jël boppam ndaxte nit man nga ko def yemale ko ci sa bopp waaye doo ko jàngal sa njaboot waaye boo dee xool li koy symboliser ci njaboot muy góor ak jigéen ànd nañ ñoom loolu lépp da leen di jàngal ni ñëw leen ngeen xool yi lu baax ma di ko ànd ak yéen te ngeen jàngal ko seen njaboot bu dee njabootum bu góor si Cheikh Ouna ma nga ngay toog bu dee njabootum bu jigéen soxna Xadija ma nga ngay toog bu dee ñi bokkal nga xam ne ay rakkam lañ soxna Ndey ma nga ne ñaar Ndey soxna soxna Ndey ñëpp ña nga ne ñun bi muy defee am importance mooy nit bu fekkee yàlla la da ngay kilifa te nga bëgg xam ni adduna amul solo lépp dañ koy netti da ngay jàngal defal sa waaye da ngay da fexe ba sa njaboot ma gën kon jëf ju mel noonu muy jëfi murit saadix su ma xamee sa càmmiñ def ko nga def ko ak ni nga leen taxawoo suñu ñëwee ci bis bu ñuy seere ngir yàlla su ma nëbbee seere nag si mun xal bu kon borom yi alquran laay waxal kon la ko jiitu ñoo ma ko gën a xam kon aju loolu rek laa ci doon wax di ko wax ngir yàlla sëñ Baara mi ñuy waxtaane nag la Cheikh Mour Mamoun la ko sëñ Moussa waxoon moo dal sëñ Baara moo dal sëñ Ibrahima Diané Baye moo dal sëñ Sayar ma ko jur moo dal sëñ Maxtaar moo dal sëñ Daam Dianéem sëriñ Tuubaa ma moo leen dal ñoom ñëpp moo dalit nag sa Idrissa waaye moo dal sëñ Asan ñii ma lay wax ñëpp sëñ Moussa day woy sëñ Fallou ba yàgg sëñ sëñ yàlla Cheikh Mourou Mamoun ba yàgg mu ne ko Cheikh Fallou nawloo na la yow saa waaj say wax du takk martum ngërëm ngay daaje.